الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bokk julit yi ñi ngi sant suñu boroom mi jaam yi war a sax di ko sant ci xéewal yi nga xam ne xam nañ ko ak ya ñu xamul ñi kay ñaan mu julli suñu yeneen taba mi nga xam ne moo ñu doon teete di ñu jàngal nu ñuy jaamoo suñu boroom mook ay sahabaam ak ña koy roy ba ila yumi diin gannaaw yow mbokk julit xamal ne suñu boroom mooy aji bind ji lépp mooy aji xam lépp waaye mooy kiy taxawe lépp waaye mooy tànn lu ko neex ci ay mbindam mooy tànn lu ko neex ci ay dogalam moom dong moo am droit gënele lu ko neex ca la mu bind looloo tax ba jël na la nga xamee ni nii moom mooy alquraanam ju màgg ji mu gënele ko ci mboolem téere yum masa wàcce ci kaw suuf soo demee ca biir alquraan mu jël ca fatihatul kitaab doonte ne juróom-ñaari aaye kese la gënale ko ci mboolem téeméeri saar ak nangam ya ca topp da doon loolu baqara la wala ali imran sunu borom mi ngi gënale fatiha ci seen kaw waaye naka noonu it alquran boobu nekk juróom benn junni aaya ak nangam sunu borom jël na ca ayatul kursi muy aaya ba ca gën a màgg mu gënale ko ci yooyu yépp naka noonu it mbokk tudd yàlla yi ñuy tudd yàlla ñaan yi ñuy ñaan yàlla jéggalu gi ñuy jéggalu yàlla lépp suñu borom da koo gënale suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam nee na na gën ci lu ñuy tudde yàlla ay di ko zikre mooy laa ilaha illa allah doomu aadama génnewul ci biir làmmiñam lu gën a baax lu gën a màgg laa ilaha illa allah yenente bi alayhi salaam nee na ñaan gi gën gu doomu aadama di ñaan mooy mu wax alhamdulillah mbokk alhamdulillah li muy firi mooy yaa ngi saxal ne mboole mi cant yàlla kese la ñeel waaye mboole mi xiiwal yàlla kese la ñeel nangu gi nga nangu loolu xam ne xiiwal yi fi nekk ak li nga yaakaar ci yàlla kese la jóge loolu mooy la gën a màgg nooy ñaane yàlla subhanahu wa taala gannaaw ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu na gën lu ñuy jéggaloo yàlla te yonent bi wax nañ ci façon yu bari alxuraan wax ci lu bari ba ca gën a gàtt mooy astaghfirullah waaye yonent bi alayhi salaam nee na ba ca gën mooy loolu ñuy tëddee ñuy tuddee sangu na ñuy jéggaloo yàlla sangu na ñuy jéggaloo yàlla ngalawaay jéem koo jàng ci arab di ko wax su dee ne yàlla dogal ne mënagoo ko wax ko ca làng ba nga dégg te mooy del wax yàlla yow day yaay sama boroom amul kenn ko yeyoo ñu koy jaamu ku dul yow yàlla yaa ma bind ca man sab jaam la man day maa ngi ci dig bi ma digganteeg yow ak la nga xam ne yaa ma ko dig di yaakaar bu ñu yaakaar ci yow maa nga ca sama kémtaleel kattan maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci ayu li nga xam ne jëf naa ko maa ngi nangu di saxal xéewal yi nga xam ne def nga ko ci man maa ngi nangu di saxal bakkaar yi nga xam ne def naa ko yàlla yàlla nag ma baal kenn du balay bakkaar ku dul yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nii moo gën ca la ñuy jaamoo yàlla la ñuy jéggaloo yàlla mbokk bu ñu xoolee jaamu yàlla yi sunu borom yàlla moo leen gënale xatta la nga xam ne mooy yonente ya mu ne yonent yi day ñu ngi noonu gënale naa lenn ca ñoom ca kaw la ca des am na ca ñoo xam ne wax naag ñoom directement ñu dégg a doon suñu yonent yàlla muhammad la alayhi salaam wala muusa alayhi salaam yëkkati ñoom ay darajaat comme na ma joxe isa ibnu maryama lay yu leer ya dooleel ko ak ruuxul qudus muy jibril ba mu mënoon a def kawteef yam doon def mbokk lii dañuy gis mboolem ñi ñëw gannaaw yonent yi it sunu borom moo cay tànn ña ko neex bokkoon na la yeneen ci bi alayhi salaam doon wax maas gi gën mooy maas gi ma jamonoon teel gannaaw ba ña ca topp gannaaw ba ña ca topp su ko defee bokk ni li ngay gëm nga xam ne sahabatul kiram ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom te nga xam ne ki gën ci xeet bi gannaaw yeneen ci bi mooy abubakar gannaaw ba xalifa ya nga xam ne ñoo ko wuutu di omar usman ak ali mbokk suñu borom noonu la gënalee ci guddi yi mu tànn ci leylatul qadr nee na benn guddi leylatul qadr moo gën junni weer waxul moo gën junni guddi de dana moo gën junni weer ay kon moo gën fanweeri junni ci ay ay ay ay guddi benn guddi gën fanweeri junni ci ay guddi naka noonu it moo tànn bis yi daal di ciy tànn bis bu màgg bi di bisu ajjuma bi yeneen ci bi alayhi salaam ne bis bi gën a màgg buy am ci semaine bi mooy bisu ajjuma moom la yàlla tànnoon bind ci bay aadama tànnoon ko dugal ko ci àjjana moom la tànnoon nit génne ko wàcce ko ci kaw suuf ca it allaxira la chak amul kenn kuy dem àjjana lu dul bisu àjjuma lay doon ndax ca la yàlla di atte ay jaamam lii mbokk boo ko toppee da ngay gis ne bari na noonu ngay demee ba gis ne makka mooy place bi gën ci kaw suuf comme naka yonent bi alayhi salaam saxale yaay place bi gën ci kaw suuf bu dul woon ak dañ maa génne ci yow du ma la génn loolu mbokk boo ko déggee da ngay xam ne yàlla mooy tànn lu ko neex waaye yow sa wàllu bopp it moytul di tànnal sa bopp ay ngëneel yu yoo xam ne jógewul ci yàlla wala mu jóge ci yeneen ci yàlla comme ni muy nar a ñëwee ci kanam ci biir tànn googu la suñu borom tànn loo xam ne tey li ëpp ci julit ñi bàyyeetuñ ko xel ndax li ëpp ci julit ñi la leen itteel mooy ñu ngi ci mois de août wala ñu ngi mois de décembre wala ñu ngi ci mois de nangam amma weer yi yàlla tëraloon depuis mu bind asamaan ak suuf mboolem yeneen yi fi jaaroon ci la ñu tënku woon ci la yàlla wàcce woon yahud yaak nasaraan yi seen téere ci loolu la tënku woon sunu borom mu ne xam leen ne weer yi ca yàlla day fukki weer la ak ñaar depuis yàlla bind asamaan yi ak suuf waaye am na ñeent yoo xam ne yàlla mu ne warmal naa ko ca mu ne lii nag mooy diina bu mat fexe leen ba ci biir ñeenti weer yooyee bu leen ca tooñ seen bopp ca ngeen xeex ak mushrikuuna yi mboole seen comme ñoom niñ leen di xeexe mboole seen yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam ne yàlla day ci biir weer yi am na ñeenti yum ci araamal benn ba mooy zul qaada ca mooy weer bii ñu nekk di ko dund tey jii di juróom ñetteelu fan sunu maam yi daañ ko woowi di diw tabaski ñaareelu weer ba mooy zul xijja muy weer bii nga xam ne ci la ñuy aj màkka sunu maam yi daan ko tudde weeru tabaski ñetteel ba mooy muharram di weer ba tegu ci aj ba sunu maam yi daañ ko tudde tamxarit ñetti yooyu ñetti weer yu tegaloo la ñeenteel ba ma ngay nekk ca la ñuy tudde ndeyi koor ca mooy rajab nga xam ne nii ah mooy ñeenteeli weer yooyu xadis boobu day buxaari solo na ko sunu borom subhanahu wa taala nag mu ne la nga xam ne mooy changé calendrier yàlla bi fekk benn weer bu araamoo ne xeex benn weer bu yàlla warmaaloom ñi wëlbati ko daal di koy tudde beneen weer bu yàlla subhanahu wa taala daganal ñu ñu xeex ca sunu borom nee na kéeféer la gu dolleeku ca kéeféeru yéeféer ya looloo tax ba weer wii ci at mii dañ koo daganal weer beneen ñu araamal ko ngiree dañuy dëppoog la nga xam ne mooy lim ba yàlla defoon mbokk loolu ak kéeféer la ko yàlla subhanahu wa taala tudde su ko defee yow julit loolu lan la lay jàngal mooy yàlla day mi ngi nii moo bind temps yàlla moo bind espace temps bi mooy lan mooy jamono yàlla bind jamono mooy wëlbati guddeeg bëccëg di wëlbati semaine yi di wëlbati weer yi lu nekk mu seet lam ca tànnal boppam gannaaw ba place yi mu seet lam ca tànnal boppam mu ne lii nag mooy diine bu jub kon muy wone ne sunu borom yàlla mooy tànn ci li mu bind mooy tànn ci ay dogalam mu ne ala lahu alxalqu wal amr fa tabaraka allahu rabbul alamin yàlla mu ne man dong maa am droit bind man doo nga am droit digle sunu borom yàlla mu ne may bind may tànn sama benn jaam mayu ma ko mu tànn dara loolee mbokk da ngay gis heure boo xamee ni nii julit ñi ñi ngi doon settantal aaya yi doon nañu moytu musiba bi nga xam ne tey moo dal ci biir julit ñi ca mooy lu ëpp ci nit ñi tey am na ay façon jaaminu yàlla yoo xam ne ñoo ko créer seen bopp ci amul benn jaamu yàlla bu ñuy créer seen bopp tëral ko lu dul yàlla xañ leen ci sunna lu tol noonee loolee da ngay gis ne kon mooy la yéeféer ya doon def te yàlla bañ ko su ko defee yow julit ngal la way xamal ne sunu borom yàlla du juum te diineem ji matal na ko xam na ban dose mooy la nga xam ne moo la ca jëriñ ngal la waay bu ko changé tey jii boo demoon ci benn professeur boo xam ne daa am spécialité ci feebar sangam nga dem bindal la benn ordonnance ne la jëlal ñetti garab yi del jël bii suba ngoon takkusaan ngal la waay sa xel mu rafet bu mu dem mukk ba nga yóbbu ne docteur bi kat vraiment li may wax par benn loolu kon du ma gaaw a wér naa ko jël par ñett ñett ngiree ma gaaw a wér wala boog naa ko def nangam ak i nangam ala kulli xaal mbokk kooku nga xam ne professeur de médecin la la ko yàlla sidd ci xam-xam sax mën na caa juum amma suñu borom yàlla du juum du fàtte kon lépp loo xam ne aji woon na suñu wàllu diine joxoon na ko yonent bi alayhi salatu wasalaam moo leeral ko lay diine mooy la yonent bi bàyyee woon ay sahabaam amma leneen loo xam ne dañu koo ñëw indi ko gannaaw yeneen ci yàlla bi jàpp ni lii kat mën nañ koo jaamoo yàlla loolee mbokk mooy tànn lu yàlla tànnalul boppam mooy tànn lu yeneen ci yàlla bi tànnalul ca la nga xam ne muy diine yàlla ji ca loolee moo yàqoon diine yahudi ak nasaraaniya ca loolu itamit da ngay gis tey bépp teqalikoo bu am ci julit ñi bépp xeebante bu am ci julit ñi lan moo ko waral mooy ku nekk rafetlu na mbir boo xam ne jël nga ko jàpp ne lii mooy sa mbir ku ci nekkul jàpp nga ne nekkoo ci dara ku ci nekkul leneen lam nekk nga jàpp ne moo ko gën su ko defee loolu loolu lay juru mooy teqile ko ak xeebante kon lan mooy li waroon li waroon mooy julit ñépp dellu ca datt ba dellu ca cosaan ba dellu ca fondement ba ca mooy yem ca la yonente bi alayhi salaam jàngaloon sahaaba ya na sahaaba ya doon jaamoo yàlla ñu tënk ci loolu lépp loo xam ne ci yoon bi la ñuy dab julit ñi daal di bàyyi loole mbokk weer yooyee bu ko yàlla farataalee ci ñun te tey jii ñi ngi nekk di ko dund sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bu leen ci tooñ seen bopp mbokk tooñ dina jëm ci sa digganteeg sa borom mooy mu sant la defuloo su boobaa day tooñ nga waxtu julli jot na lank nga julli woo ba waxtu wa passé zakata ngi nii génne woo ko koore ngi nii am na bis boo ca dog aj makka ngi nii fasoo ko yéene su boobaa day xamal ne tooñ nga waaye li yàlla araamal ci yow loo ci defit xamal ne tooñ nga sangara bi njaaloo bi carte gi xamal ne tooñ nga waaye xamal ne it ne tooñ goo tooñ sa mbokk julitit wala tooñ goo tooñ kum mën a doon ci jël àqam loolee da ngay gis ne ak tooñ la goo xam ne lii lépp boo ko dajalee sa bopp rek nga tooñ sa bopp rek nga tooñ ndax conséquence tooñ yi ci yow rek lay dellu loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax sunu borom yàlla subhanahu wa taala mooy màggal lu ko neex lim màggal màggal leen ko bokk na ci loolu lee nga xam ne mooy masjidul haram ca makka suñu borom ful na bépp rakka boo fa julli mu defal ko téeméeri junni rakka waaye nee na ko fa bëgg a def bakkaar sax danaa ko mbugal loolu kon julitit da ngay war a xam place bi nga nekk ndax bokk na ak bi nga jógee waxtu wi nga nekk ndax bokk na ak waxtu wi nga jógee lii lépp julit da ko war a bàyyi xel su ko defee nga xam ne place yi bokkul waxtu yi bokkul bés bu la ñu joxe ci misaal nekk fee ca mbedd ma di jëw baaxul de waaye dugg ci jàkk di jëw moo ko gën a bon nekk ca mbedd may saaga baaxul de waaye dugg ci jàkka ji di saaga moo ko gën a bon kay njaaloo ca restaurant ba baaxul de waaye ñëw njaaloo ci njàkka ji moo ko gën a bon naka noonu itamit la jullit war a bàyyee xel place yi ak waxtu yi yàlla warmaal ngan la waay mu jëm cee tënk boppam ndax loolu lan la mën a jur gis nga sàggane sa bopp ci waxtu yi yàlla warmaal mën na laa jural nga def ay bakkaar bakkaar yooyee yàlla ful ko ba benn waay bu defoon ay bakkaar ci yeneen weer amoon ca nangami bakkaar mu def ko ay ati at yow bakkaar bi nga def ci weer bi gën koo garaaw ci yàlla lu tax loolu ngir place bi noonu ngay war a xame bara profité ci ay jaamu yàlla xam ne it benn waay mën na def ay tuyaaba yu bëree bëree bëri ci yeneen weer yi passé yow nga def ak jaamu yàlla gu yàlla nangu ci weer wi mu ñëw romb mboolem tuyaaba yooyu mu defan ko lii kon mbokk il faut ñu góorgóorlu ci donte ne ñetti weer yi amul luñ ko jagleel ci ne nangam ji dañ ko cee war a def ay la doon tuyaaba ci yeneen weer rek nga ciy def na doon loolee ay julli la ay koor la ay sarxe la ak lu mën a doon allahuma lu dul ci biir ñetti weer yooyu yàlla tànnaat na ci fukki fan yoo xam ne da koo màggal te mooy fukki fan yu ubbi weeru tabaski bi nga xam ne ni ca la ñu jëm loolee ak yenn bis ya lu mel ni bisu arafa ak lu mel ni bisu al yowmul hajjul akbar nga xam ne nii mooy bis ba ñuy tabaski kon lii mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel waaye gën a bàyyi xel li yàlla wax bu leen ci tooñ ngal la waaye mbokk nañu xam ne jullit day mooy ki nga xam ne ni du tooñ tooñ day yàq say jaamu yàlla yàgg ngeen ko dégg ci xutba yu dul jeex doomu aadama man ngaa baaxal say julli baaxal say koor nga dem yowmal qiyaama yàlla mere la daal di lay mbugal ngir tooñ yi nga xam ne doon nga ko tooñ tooñ yooyu nag da ngay gis am na ca yu yomb lool jegeñu lool ca dangereux loolu mooy tooñug lammiñ nañ ci góorgóorlu téye suñu lammiñ ci deri julit ñi bañ leen di xas ci deri julit ñi bañ leen di tuumaal ci deri julit ñi bañ leen di jëw loolee moo tax yonent bi alayhi salatu wassalaam ba muy dénk muaz ibn jabal la koy tax a texe dafa génne lammiñam bu tedd ba na ko muaz moytul ma kii mu ne ko ah yow mi yàlla yónni li ñuy waxante nii rek yàlla danañu ci jàppee mu ne ko xanaa xamu ne waa sawara dañuy jël seen kanam dépp ci suuf seeni tànk jëme kaw lan moo koy waral mooy lañ doon wax ci seen lammiñ ya moytu leen tooñ ñi leen yàlla musale ba tuuru leen deretu jurit ñi yàlla musal leen ba lekku leen seen alal la ëpp ci ñoom la ëpp ci yéen boog fexe leen ba yàlla muccal seen lammiñ te la nga xam ne mooy deru julit ñi yal na yàlla yombal ko ci ñun ay yéen mbokk julit yi bokk na lu lay dimbali ci loolu nga xool place ya ngay tooge rawatina ci weer yu màgg yi xoolal place ya nga xam ne da nga fay jëriñoo di ànd ak ñu baax ñu lay fàttali lu baax moytul ñoo xam ne seen toogaay jëw kese la moytul ñoo xam ne seen toogaay waxi àdduna kese la sunu borom yàlla mu ne del toog ak gaa yu baax ya wasbir nafsaka ma allazina yaduuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha bay toog del toog ak ñuy fàttali ko yàlla di tudd yàlla suba ak ngoon moytul ma di ànd ak ñoo xam ne seen mbir yépp àdduna la seen mbir yépp waxi àdduna la kookee nga xam ne ni yàlla mu ne saggane naa ab xolam ci tudduma borom bi mu ne ay jëfam yépp nekk pertange ay wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawahu wa kana amruhu furta mbokk lii da ngay gisee ne benn tënk la ca la nga xamee ni nii jëloon nañ ko di ko dénk suñu bopp di leen ko dénk yéen tamit ci ngeen góorgóorlu ab julit mboolemu dundam da ko war a saxal ci li neex boroomam waaye itamit heure bu yegsee fu suñu borom ne attention mu def attention ñi nga xam ne xam nañ code de la route xam nañ ne bay dawal soo ta war nga def attention waaye léeg-léeg nga yegg benn place ñu la attention tali bii dafa dangereuse attention ay camion dañuy génn fii attention ay xale dañuy génn fii naka noonu itamit suñ demee ba benn jamono suñu borom ne attention war nañ gën a bàyyi xel ca kon mbokk ñi ngi tiim ni ñetti weer yoo xam ne dafa tegaloo suñu borom mu ne moytu leen ci tooñ waaye nam ñu moytuloo tooñit la ñuy wax góorgóorlu leen ci baax lu baax yal na yàlla dox suñu digganteeg ñuy tooñ suñu bopp yal na yàlla yombalal lépp lu ñu koy jegeel yal na yàlla wërsëgal ñu màggal la màggal yal na ñu yàlla wërsëgal ñu tànn la mu tànn yal na ñu yàlla musal ñuy tànnal suñu bopp yal na ñu yàlla musal ñuy bañ la yàlla tànn suñu kaw yal na yàlla wàcceel ñu jàmm wàcce ko suñu réew yal na yàlla wàcce ko ci mboolem réewu julit julit ñi nekk ci ay coono ko ci sëkki guerre yal na yàlla woyefal ko teggi ko ci ñoom nawet bii ñu nekk yal na yàlla barkeel ko nekk ci ñun lépp lu ciy jëriñ yal na yàlla wàccal ñu ko lépp lu ciy lor yal na yàlla fegal ñu ko yal na yàlla rafetal suñu mucc te yàlla defal ñu ajjanal firdawsil aala mu nekk suñu dajewaay allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azab annar سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين